musique barrière yi il faut ñu fonko ko musique barrière yi liru nga ni musique barrière yi il faut ñu fonko fo mo fekk ba tak sama kon xaram ndank ma tak sama casque comme que respecte musique bu barrière yi nga wax xaram tak ndank sama casque <laughs> mais yow bu ma reetaan lo wat mais man bëgg na xam ban solo lañuy ñuy musique bu barrière yi sax xawma uwa yow da ya ñak kersa ba melni deew timis do rer te do bàyyi kenn rer <laughs> ah kon gaay comme ni ko liru waxee rek kon ñu takkaat masque yi waaw ñu ñu ñu ñu sol zel ba pare en plus ñu respecter musique bu barrière yi ah waaw aussi ñu respecter aussi distance bu baax a baax a baax waaw gën a xeex corona bi. li nga wax mooy dëgg. kon bu loolu weesoo ñun sénégalais est-ce que xam ngeen nekkatuñ ci jàmm. ah metti na metti na buñ ko waxee metti na buñ ko waxul metti na. man de yërëm naa sama bopp. waaye tamit askan bi nekk sama ginnaaw yërëm naa leen lool sax. ak Sénégal des fois da ngay xool affaire yi da ngay triste quoi. dana triste kay ndaxte ñu ngi ci dëkk boo xam ne kenn yéenewul sa morom jàmm ñoom daal reyante rek. lii lii lii dafa doy waar quoi. ah weesu na doy waar kat ndaxte dëkk boo xam ne fii daal kenn du fi tekki. daal je suis la yërëm rek boo fi commencé tekki sax ñuy xool ni la faagaagalee. y a des choses yoo xamante ni xam nga. il se tourne dans mon tête. même moi il se tourne dans mon tête. Hmm? rawatina kat mu doon jigéen. man sama yaram dafa daw. loolu kay képp ku am xol ko sa yaram na. du Sénégal de mooy dëkk boo ne bala a a rek mu fekk ñu mais boo de commencé raw ñu xol ni lay faagaagalee. kañ la ñuy mucc. ak kon xam nga né loolu bokk na ci li ñuy du y man de sellu na ñu Sénégal di ram ndax xol yi bon li ñaaw na mo taxit yowmal mal do ngi gis ponkal mu gadd ñaari ci way di lagal lagari ak xol bi fur ba ne dagaj biir safara nak yalla nako ah yow atteeguma la di nga lako jël nga may atte xamna li ma def lolu <laughs> lepp nak soxor mo len ko lolu da fay ñaaw nañ waxante deug dara mënu ko justifier mais c'est bizarre mo taxit Sénégal dépp so nan est-ce que est-ce que li dal law be ngay mi do Hamidou Sidibé moo ko teg astafirullah wóoruma nag waaye lu ci mënta am yoon dina def liggéeyam te nag gars yi nag képp ku ci xamut Serigne Hamidou Sidibé mel leen ma ndànk mel leen ma tuuti ma wan leen waaw lu waral boo gisee Serigne Hamidou Sidibé gis si biir problème mooy daa doxul si caaxaan. gars yi borom pétaaw yi ngeen di seen moom mooy Hamidou Sidibé. mun daal je suis daal. parce que tey maaraay bëri nañ trop. mais mais mais taxaw nañ attends mais gars yi kii du si problème. waaw moom la. xar xar mu yóbbuwaat ñu xool. waaw lu waral boo gisee sëñ Amidou Sidibé gis si biir problème mooy daa doxul si caaxaan. pourtant moom la de. yaa seexul Ibrahima Baba Lamine Diassé. waa kii si biir problème la <laughs> taxaw leen naka ñu dégloondoo ko na ko ñëpp dégloondoo taxaw leen. waaw lu waral boo gisee sëñ Amidou Sidibé gis si biir problème mooy daa doxul si caaxaan. <laughs> parce que tey maaraay bëri nañ torop mais ñi naxaate ëpp. <laughs> parce que xam nga la lay bañ. waa Simbi lay bañ. day bañ simi mooy ànd ak mooy ànd ak mara bi naxaade mbooy ya mën fen yow li nga def bu mo gëna a bu àndul ak serigne bu naxi sax mu xawate rek quoi mais yow serigne bu reyaate nga andal manam tax nak diko promouvoir parce que xam nga lu war a parce que ndaw la tax xam-xam bi yalla da ko jox yàgg naa ko ci bi lepp leer na lepp leer na waye simil mi tay lay melni ni mu nu bëtt ak ay yamb tey oh nga melni abay simil problème bii de bu nekké ne nit la tey fii la war a jaaree bàyyi waxam ju bari ji nekkee nii yépp am na yoo xam ne nit a koy xam. dëgg du romb nopp. waaw lu waral boo gisee suñu amiru si ba gis si biir problème mooy daa doxu si caaxaan. waxoo loolu kàcc kàcc nga doo wax dëgg. non man moom franchement parler lii mënu ma koo gëm kon seeni problème waxam ju bari ji nekkee nii yépp kon ci lëndëmal xelu sénégalais yi rek la doon dox. waaye yàlla miy leeral lépp leeral la. tàcc leen. moo taxit bu ma gisee commentaire sénégalais yi ci wax seeni problème ji non sénégalais ak seen réaction. noonu lii franchement parler man moom ñemewuma cee jaar. sa diggante yàlla. barki rasulullah sénégalais yépp xam ne si mi problème. buur rek lay def. <laughs> waaw lu waral boo gisee seen Amidou Sidibé gis si biir problème mooy daa doxu si caaxaan. li kii di wax ay fan yu neen la. li ma gën a sof ci si mi problème nag caméra bu ko tiimee mu mel ni koon rajo di rek na problème yaa la problème yaa ngay di mel ne ku na Rico bu 25000. Rico Rico bu 25000 kay. Rico 25000 fan la moom mi ko taxamtiku xam na ko. <laughs> sabaralaay. parce que tey maaraay bëri nañ trop mais ñi naxaate ëpp. waaw lu waral boo gisee suñu amiru si bi gis si bi problème mooy. <laughs> parce que ndaw la tax xam-xam bi yàlla da ko jox. xam nga ni da ngay nga ni day fen. <laughs> kon nag si problème wax ju bëri ji nekk nii yëpp fi la war a jaar jeex ba faw. 2019 lay jeex. 11500. waaye. si problèmes, problème du ko bokk ak pourquoi. xana ay fen. la piscine man de dama on va lui juger. te fi ak 2022 bu fi si Sénégalais problème gennaté di wax sénégalais dinañ xam ne li si ne problème di wax ni yépp du deug ay door la. Si bu ko sénégalais mën a ne ñi gàmm ak ñi ras dem. maanaam ñu fi nekkal di askan bi ak ñi fi nekkal askan bi rek tax. du Euh, gars yi bu ko defee rey gi ci boppam dafay war a jeex quoi waaw xëy nit day nekk ci dara walla maanaam mu am dara ñu koy soxoree mu xëy ñu jël bakkanam xam nga loolu rey gi ci boppam moo fa war a jeex comme que Sénégal wax nañ ne ba léegi ñoom kenn mënu mënuñ valider maanaam ku ñu rey mais ku rey dañ la war a lu métti quoi pour man bu ko defee rey gi mën fee gaaw jeex quoi parce que lii dafa métti imagine toi nga am sa benn bro frère wala nga am sa benn rak wala mag ولا راوتنا سخ ولا أي جين بخي نجيل بكنام فرنسا ما مثنا دار مثنا ورنا نجي من التقى وباخ باخ باخ تخيركم ليك واخ مويدك واو كن جاي آه، من دليل واخ ماي لون جن واخ لين من من واخ لون جاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكرة هني باي ما مُنيان يتسارو آمين Yeah. <laughs>